Assalamualaikum, man maa ngi tudd Jumoru Ka maire commune de Kër Momar Sarr. voilà monsieur le maire ñu ngi ci bis bi nga xamante ne ngi màggal lépp loo xamante mi ngi jëm ci xeex dagg garab ak bi. ci mairie bu nan ngeen di dundee jafe-jafe waaw di rafetlu question bi di ci am mbégte pour ci tontu. ndax kenn ku nekkam na ne naataange moo ngi génn di génne ci àll bu am ay garab loolu bokk na ci di gën a dundal sax e, doomi aadama walla di génn indi yokkute ci gox boo xam ne bii moom la garab yi sax kenn ku nekk xam na ne sax dégg nañu wax ne taw sax fii yéen a ëpp ay garab foofu moo génn di faral di bari ay taw ñun nag fii ci commune de Keur Massar bokk nañ ci ñi nga xamante ne garab yi dañ leen di takk te loolu nekk na loo xam li ñoo ngi ci keekam te métti ñi lool sax na xawti yàlla wala fii béréb sàmmukaay la te li ñu ko tax moo ngi ñu dal su heure bii nu nekk amee nekkee danañ am alimentation pour jur gi di am fu mu lekk waaye danañ dem ba moment boo xam ne bi doo gis dara doo benn ñàkk ci gox bi moo faral di nga suñu mbokk yi éleveurs yi di màngari di topp àll yi di dem ci foofu nag lañu faral di léeg-léeg dañu gor ci garab yi pour jox jur gi loolu nag du sax solution bu mën a takk jur gi mu am dund parce que pour que loolu mu am li muy yàq moo ëpp li muy defar te loolu am na fi nu ngi ci keek bi nag ndax gis nañ yeneen communes yoo xam ne sax daanaka boo leen duggee tey ñoo ñooñu gën a naat garab ñooñu ëpp garab loolu li ko waral mooy ngor gi dañ ko foo aaye aaye boo xam ne mun na takk loolu mu mën fa sakk pour nag loolu nga xam ne moo ñu dal ci fii ci ngor mi am na bi yeneen yi nga xamante aussi dañu utiliser garab yi ci wàllu charbon loo itam ne toujours dafay am takkul mu nekk lu nga xamante ne dafa fes ba nekk màndarba bu kenn mënul wax waaye lu mu néew néew di ci am ci biir commune bi suñu sama sañoon du am ma mën a toog fii tey di wax ci télé pour àddina yëpp dama seetaan may wax loo xam lii amut wala baakul ci suñu commune ala kulli xaalim ngor mi léeg-léeg am waaye nag nun ci takkuwaayi eaux et forêts bi nga xamante ne tey mooy tax ñu mën a loolu yëpp ñu aar ko parce que li ngi loolu parce que euh, environnement transfert yi ñuy transféré collectivité locale collectivité territoriale dafa bokk ci ci environnement ressource naturelle kon pour sàmm àll bi ba mu naat yokk sax garab fi amul woon garab sax ñu mën ko jëmbat yeneen garab am loolu dafa nekk suñu takwaay ba tax na ñun toujours noo ngi bëgg jógee ministre de l'environnement mi nga xamante ne loolu moom moo ko seere pour que ñu mën a fekkee ba suñu àll bi ñu gën ko mën a taaral ci wàllu gàncax garab yu takaw day nekk sax garab yoo xam ne sax danañ meññ loolu sax dafay am dal di am nun commune de Keur Momar Sarr itam bokk nañ ci commune yi nga xamante ne grande miraay de verte jaar na fa bokkoon itam ci ñi war a gënoon bugg ñi gën a bugg taxawaay boobu nga grande muraille di verte di def ci tracé bi mu jaar pour jàppale collectivité territoriale yooyu ba ñu mun a aar seen itam ñu mun ko sàmm waa itam mun am yeneen garab yu bes yoo kam sax daneen jimbat ceeg fa nga xamante amul woon garab demal sax ba cité ay site yoo xam ne dañ koy fas yene def waaye ci jamono yi nu passé sax eh, ñu ngi waxtaan ak ministre bi nga xamante ne moom moo yore loolu ba tax na ndax ñi nga xamante ne ñoo eaux et ci ministère boobu la ñuy dépendre mais tax ñun itam ñoo ngi lëkkaloo ak ñoom am encore yay ay équipe yoo xam dafa jóge ci ministère boobu di waxtaan ak ñun nax lañ mën a fekkee ba ñu mën ñu génn a dimbali ci ay taxawaay ak moyen ak pas-pas ak sensibilisation ci biir àll yi ak nit yi ak sàmm yi pour que ñu mën a gën a fekkee ba loolu nga xam ne mën na tax àll bi mu ñoŋ ba ku dugg nga gis naataange Eh, àll bi pour que suñu commune mu gën a naat mu gën a baax ci loolu rek la nekk nii incha allah. Euh, xam nga tudd naa ko sànq parce que boo demee ci yeneen réew yi nga xamante ne dañu gën a développé wala dañuy gën a sax am ressources yu bari ak taw ak yeneen danga fekk ñu am ay garab nekkul ni xam nga ñun suñu garab yi li fi gën a ëpp mooy ay senga ak ay sump. te garab yeneen yu fi nekkoon sax doon gën di meññ nit yi sax di ko jëriñ am na ci yoo xam ne dañuy wàññeeku lu mel na we rek nit yi dañ ci doon am alal parce que dañ ko doon kas di ci am dakkandi di ko jaay. loolu dem na ba bekkoor yi rey na ci lu bari lu mel na sump mën na sidéem loolu euh, siddéem loolu itam ne moo ngi wàññeeku fii ñu gis ñu ne àll bu amul garab àll ba am na lu bari mu lu manqué ci moom te am nañu garab. waaye bogg nañu li nga xamante ne moom la ñu gën a war a taxaw itam ne ñu jàppale ñu ba ñu gën di mën a sàmm suñu àll bi lëkkaloo ak Eaux ak ministre de l'environnement loolu vraiment dañ ci am soxla ndimbal lool pour que itam ñu ñu mën a déplacer wu mën a taxaw dem ci àll bi mën a sensibiliser nit yi béykat yi ak sàmmkat yi xam loolu ñun loolu la ñuy dundee loolu vraiment dafa nekk loo xam ne aussi nekk na suñu euh, soxla tey de noo ngi ci nag noo ngi ci nag kay na moteel wuñu pour def lépp waaye noo ngi ci loolu waaye itam am nañ yaakaar ni tey ci taxawaay bi nga xamante ne gis naa ci jamono yii passé ak tey ministre bi sant nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ak ñun gis nañ su fekkente ne loolu mote leen incha allah changement bu bëri dina am ci àll bi ba nga xamante ne ku ci dugg da nga gis parce que àll bu amul garab dund dafay manqué xam nga gis nga ne wax naa la sànq réew yi gën a développé ba jëmee dañu am ay garab yu bari noonu gis nga ne nii am nañu dekk am nañu ndox am nañu lépp waaye bu nawet itam dañu am espace yu yaatu yooyu yëpp am na gaa am na àll yoo xam ne sax daanaka boo demee dafa fekk garab dafa bari kenn góoru ko sax dafa fa amul waaye loolu sax suñu sañoon dañ koy def ay euh, kii ay parcelle de de de de reboisement nga xamante ne yoon yi nga xamante ni ñu ngi jaar fii dem ba Louga wala feneen ci biir àll bi ñu mën leen sax jimbat ay garab bu nawatee wala leneen lu nga xamante ne mën na takk àll bi sensé ci wàllu environnement ni garab yi gën a sakaat ñu mën a indiwaat garab yoo xam ne daanaka dafa nekkoon fii te amoon njëriñ te nekkatul yooyu yëpp ñu mën a fekkee be lekkaloo ak Eaux Forêts ak taxawaayu état bi pour que loolu yëpp ñu mën a fekkee be mu gën a delluwaat si àll bi àll bi gën a naataat nga xam ne boo fii duggee noor ak nawet da nga gis naataang te loolu mën na nekk te loolu nag soobee yàlla ci loolu lañ nekk nii waaw a ah, jaaram